juróom-ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen doyoo ba noppi tey ci àllarba ji fukki fan ak juróom ci weeru février atum ñaari junni fukk ak juróom-ñaar li gën a fees ci bopp xibaar yi dem beeg dikk bi Sénégal dem ak dikk muy nag yoon boo xam ni ay oto la yuy dem ci gox-goxaan yi yenn ci horaire yi rawatina ñuy dem ca Kaolack ni nguur gi bëgg naa yàq dem ak dikk bi ndax ñoom privé yi lu ñu yor ñu nangoo ko seeni i loxo ñenn ci askan bi ñu ko rafetloo ñu des ni taluñu ko fu mu gën a yombee ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm moo leen di teel dañ ci amal ab reportage

Faoy di ab gox bu nekkee ca diwaanu kaw Kaolack dem ak dikk jafe na fa lool lu jëm ci wàllu paj mu nga fay sooxee ambulance bi gën a néew amuñu ko amoo ne lu ëpp ñaari junni doomi aadama ñu nga fay yeewoo ci wàllu tàggat yaram am nañu ko waaye nag àndul ak i koppar mu yëkki ba nga xam ni eh, ñoom ñoo gañe dëkkee ca diwaanu Saloum ñibbi nañoo ak seen coupe ni coupe nationale war a taxawal Sénégal ci jongante ci coupe d'Afrique te dara la ñuy amagul ci sa matuwaay bu ñu sukkandikoo ci ñenn ca njiite dañ ko teewlu ci biir xibaar yi dañ ci tekk eh, bitim réew li moo gën a fees ci xibaar kanam tuuti ñu yaatal dal leen ak jàmm ci xibaar yi ki yaatal dañu koy tàmbalee ci mbirum yoon ki nga xam ne nag moo jiite forum justiciable di Babacar Ba yëkkati na ay kàddoom ni mbirum Ibrahima Dem muy magistrat boobee tekk woon ndombal tànkam ci conseil supérieur de la magistrature day wane ni rek toitekaay bi am na lu ciy soxe te sax war nañoo soppi texte yooyu ak nañu koy jëfandikoo ba mu ñu mën a moom seen bopp saa ñu bëggee def ak dindi mu mën a yomb ci ñoom ay kàddoom Fatoumata Seye moo ko taataan conseil supérieur de la magistrature bu ñu waree def ay nomination le plus souvent dañuy def lu ñuy wax consultation à domicile alors consultation à domicile ñu dégg sax la ministre de la justice muy dëggal ne consultation à domicile yoon moo ko prévoir dëgg la yoon moo ko prévoir mais ministre bi waxul leen que ni yoon moo ko prévoir mais yoon dafa ni pour nga utiliser ko urgence la war a doon. le euh, le magistrat Ibrahima Amadou Dème wax na ba tudd li nga xam tey mooy violation principe de l'inamovibilité inamovibilité mooy principe boo xam ni moom moo war a garantir indépendance su magistrat bi pour que magistrat bi bis bu ñu ko bëggee jëlee ci fi mu nekk pour sanctionner ko tant que joxewul avis am accord kenn du ko mun a affecté. ñu gis le ministre de la justice keroog bi mu demee euh, assemblée nationale wax na ba tudd ay sanctions te bi mu waxee sanctions yi ci dégg-dégg na moo ngi naan bu ñu waree sanctionné ay moromam ñoo koy sanctionné mais loolu. ku ko dégg day foog ni tey l'union dee magistrats moom mooy sanctionné wala boog magistrats yi seen jëm bopp ñoom seen yoon nekku ci alors que c' est le conseil supérieur de la magistrature par le biais du conseil disciplinaire ñoom ñoo am habilité pour sanctionner magistrats yi mais conseil supérieur de la magistrature boobu président moo ngi fa le ministre de la justice moo ngi fa ba pare conseil disciplinaire boobu mënul déclencher procédure sanction bi tant que le ministre de la justice saisirul leen ci wàllu dem beeg dikk bi ñoon nañu ko Sénégal dem dikk mooy nakk bis yu bees dugg ci gox-goxaani ci biir réew mi yenn ci transporteurs yi yore ay horaire di ko naqarlu ni nguurug Sénégal yàq dem beeg dikk bi rawatina ñoom ñi doon liggéeyal seen bopp lu ñu yor rek ñu nangu ko seeti nañ ci ñu horaire yee jóge fii Ndakaaru wutali Kaolack ñu ne mbir mi ab xëccoo la nañ def kemtalaay kàttan ba téye seen i clients yenn ci clients yi ni foofoo leen gënal ndax lu ñuy seew dem ak dikk ñëw ci jaam bi ko ñeneen rafetloo ne ak bi ci Ndakaaru ak biir réew mi lu baax la ñu teewlu ci reportage Fatoumata Seye toog ci oto bu neex ba fa nga jëm ndaw si moom bëggul lu ni mel ndax nag poos ba sa la bokk koppar ya mu nar a génne ca gafa ga doon lu xaw a diis lool fa moom. koo xamante ne ni da ngay liggéeyante ay dépenses ak yooyu munoo wëlbatiku di fay ay 4000 francs ci aller rek sans retour te bu fekkee ne horaire yi la moom 2200 ngay fay kon duñ ko mën a yemaleeg dee. nguur gi nag taxawal li nga xam ne moom mooy Sénégal dem dikk di ay bus yoo xamante ni dañuy mën a dem ci région yi nekk nag ku jegoo xamante nii yemalew ñu ko ndax gën a diis lii di horaire yi bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur si yàqal dara ndax ñun fu ñu dëkk ñeme nañ ko suñ kër lañ ne la ñuy jógee suñ kër lañuy dell dellu clients yi ci dugg xam nañ ba léegi tay la clients yi gën a bari booy seet maanaam ñoom li ñu fayeku si kenn nit ki Mm, su ñun ci ngay dem Kaolack dikk ci Dakar. ca beneen fàll wa nag ñoom daal nañu joxoñ tuuma ñii di nguur gi gis nañu ne daal ñu ngi rey ndànk-ndànk lii di seenu pa liggéey. dañ xeex te ñun ay doomi sénégalais lañ lii ñu ne nii dañ ciy lekk rek di fortaatu di liggéey. contre luñ nguur contre laanuñ nguur waaye liñ ñor ñun. di ko dundee ak bugg koo dundee ak suñuy njaboot nañ ñu ko bàyyee. Ngóor si moom mbir yi da koo rafetlu gis na ne daal kaaraangeem ak jàmmam moo ko ëppal solo fuuf yaxanal poosam. boo bëggee am lu baax da ngay def itam da ngay di bëgg itam lu baax parce que tamit mën loo nekk di voyage di fay 2000 francs ci situation bu xam ne bi doy na ñu indil la 4000 francs ci li nga xam ne lii tu es bien à vraiment lool di dem ci 4000 francs yi. baax foofu daal amu ci dara ci wax giirug dem gékk dikk bi bari coow lool. ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci lu ni mel ñu ngi koy ñaawlu guddeeg bëccëg la ñu sàkku daal ci nguur gi mooy lenn mu jël lii di wàllum dem dikk bi jaaralee ko ci yoon ba lépp mën a demaat ca na mu ware ñu wutali diwaanu Fatick gox bu ñu fay wax faawo yi am na jafe-jafe wàllu dem ak dikk ay yoon amu fa waaye mbirum paj maat bokk na ci li leen ndax ambulance bi gën a néew amuñu ko monte lu toll ci ñaari junniy doomi aadama ñoo fa yeewoo ceex na daaf moo ñu fa demaloon. ñu ngi fii ci faawo yi di dëkk bu bari ay jafe-jafe. amuñu ambulance pour malaat bu ne bu bu amee fii. pour nga évacuer rek dafay am jafe-jafe te xam nga fii boo gisee euh, fa ooy Eh, géej gi presque def ko wër tali bi rek mooy benn sortie bi waaw amul fenn foo xam ne mën nga jaar foofu oto ci nawet ndax ci tali bi moo tax ñu bëgg tali bi ñu goudronné ko. dam bi day mattu yenn saa ñu am jafe-jafe dañu am ambulance bu ñu mun a yóbbu évacuation dañuy obligé woote Diofior ambulance boobu ñëw door a yóbbu malaat bi. amuñu courant amuñu courant. bu dee lu cas bu urgence la le temps nga toog fii di xaar ambulance buy jógee Diofior ba ñëw mun nga am presque risque semaine passée rek kooku dafa waroon a wasin presque daa dem ba Fatick la dafa wasin de sept mois la amoon xale ba dellu. waaye foowe diiwaan la tamit guru torop. yéen bi ngeen di ñëw gis ngeen yoon bi nu mu mal te xam nga lépp loo xam ne moom mooy soqali dëkk il faut mu am yoon bu baax am courant. toujours bu ñu waxee dañuy wax ne yoon bi baaxul pour oto camion yi ñëw ba fii jënd xorom dem yoon bi baaxul dañuy borom camion yi dañuy daw yoon bi ndax yoon bi baaxul. yoon bi bëgg nañ ñu guddere ne ko parce que loolu moom moom moom moom moo moo mën a tax mu dëgër. wàllu xorom bi it gis ngeen euh, ñun lu ñuy lu ñuy génne fii presque mën nañu am fii lu mot mille tonnes et quelque chaque année. am na euh, euh, oto yu bari yoo xam ne nanguwuñu sax jaar fii ci oto ci ci yoon bi parce que ñoom wóoluwuñu ko. si cuur ci nawet bi looloo waral nag ñu fàtte fawoye ak askan wa fa yeewoo financement yi nga xam ne moom laa nguur gi di joxe ba tey yegg seegul fa oy dañ koy dégg à la rajo rek mais yegg seegul fa oy te yaakaar naa ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal financement amu fi te jigéen ñi presque pour ñu liggéey fi il faut que ñu am financement bu ñu amee financement mun nañu liggéey dem itamit jigéen ñi bu ñu amee financement itamit ñu ngi jooy tali bi ndax bu amee financement itamit to amee oto amoo oto bu lay yóbbu Dakar di lay indi itamit jafe-jafe la Jakarta ngay jëlee fii dem ba lu seeseen fay mille francs doo jël oto dem Dakar boo ñib si itamit da ngay ñëw ba lu seeseen fiyaat 1000 francs presque boo gisee tarif lu seeseen fa ay 2000 la moo ëpp paasu Dakar. Fawe mu ngi bootu ci biir commune bu Djilass arrondissement de Fimela askan wa fa yeewoo ñu ngi koy xayma ci lu war a toll junni ak juróomi téeméeri doomi aadama ñoom ñépp nag ay séeréer lañu yuy dunde mbay ak càmm mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri na Daaf dañuy wutali Ndar gox bu ñu fay wax raw foofa ñë bokk ci parti APR te jógee ci yeneen parti ñoo amaloon am ndaje ñu ngi soññ nag nguur gi ci ay matuwaay mu jël ko suqali seen gox ba ba seen koom-koom gën a yaatu bokk na ci vallée ba ñuy wax Jalaxaar ñu jël ci ay matuwaay ndax defar nañ ko ba noppi waaye lu ñu fa bayee lu ñu goree moom la ñu amul kenn ca ñoom Magui njaay la ñu teewlu ko ci ko gis-gis la jógee ñëw ci APR ak suñu naataango Gabriel Barbier euh, dugg si nanu addina bi yëpp gis nañu li ñuy wax na mooy li nga xam ne moom tax a jóg mooy liggéey sunu localité pour mu jëm kanam bi ci jëkk mooy président Macky Sall dafa instauré pour réew mi en 2017 moom autosuffisance en riz ñun dañu am vallée boo xam ne ça fait dix mille hectares ngalam arrosé que am nañu ndox am na nañu suuf am na nañu ay bras dañu bëgg nañ participer ak moom. ci auto autosuffisance en riz boobu pour que aussi ñun suñu localité mën euh, am wàllam ci autosuffisance en riz boobu kooku ñu koy sàkku pour aménagement yi ñu dimbaliñ ci matériel agricole bi ak euh, jumtukaay yi nga xam ni ñoo nu war a eggale ci foofu. beneen bi ci desit on a des femmes des femmes yoo xam ni ba fii ñu toll ñuy waxante yow dañu am ay difficultés te bëgg nañu ay financement am nañu ay jeunes yoo xam ni. là avec l'emploi des jeunes bëgg nañu quand ñoom it ñu am ci cër parce que on a beaucoup de jeune qui sont là te laaj na ñu am ay ay ñu am ay emploi moom beneen bi ci des it aussi euh, am na benn doléance boo xam ne c'est une vieille doléance wax nañu ko jooy nañu ko partout mooy raw dafa nekk chef-lieu d'arrondissement amul benn chef-lieu d'arrondissement bu nekkul commune presque raw kese booy seet ci Sénégal moo ci des donc te ñu doon sàkku mu nekk commune boobu ak léegi. bu ñu jógee ndara di ñibbisi ndakaar dañuy taxaw si bi xutaan foofa nag waa PDS ñoo fa àndoon ak karamis yi doon amal am ndaje ni dañu ràbbale seeni buum ba nguur gi fi nekk ñu wàccee ko fi ndax saafarawul jafe-jafe askan wi lépp loo xam ne rek liñ fi bàyyi woon ñoo waa PDS tey njëg yokk na ba métti lool ñu teewlu ci reportage bi Nasib Sagna comme Guy fënax na nañu boolu sempi ko. waa PDS dañ dajale fii si Sébikotane pour mën a xool ay pexe yoo xam ne dañ koy laal. pour que Macky Sall ñu gën si pouvoir bi 2019 ñoom nag danañu pexe yooyu nag dañ bu ñu koy laal dañ koy def ak waa karimiste mouvement karimiste yi nekk fii si Sénégal. jigéen ñi ma xamal leen ni ah wàcce caa yokk na ceeb bi yokk na dëwlin bi yokk na ciment bi yokk na mburu bi yokk na farine bi. depuis nga xamante ni liggéey lu ñu askan wi dañ fa nekk di xuloo di xeexoo di ŋaññante. nous allons gouverner ce pays. nous allons changer les choses. nee na ñun tànn Sébikotane du loo xam ne dañ ko def nii ndaxte Sébikotane nekk na bërëb bu nga xam ne nii dafa jege trop jam ñaajo waaye nag bu pôle urbain bi commencé ba léegi Sébikotane amul dara loo xam ne nii da ko bénéficié wu. malheureusement yi Macky Sall ñëwee dafa taxawal chantier yëpp bu mu demee nag ba mënatul dem mu ne xaaral ma demaat ci chantier Abdoulaye yi comme au moins financé woon nañ leen bailleur de fonds yeeg ñi mu yëpp d' accord woon nañ dañ koy finance ba xaalis si ma delluwaat foofu ci la ñëwaat nag. Quelqu'un qui vivait ici à 50 ans, il fera le même constat. Rien ne va à Sébikotane. Ça ne marche pas, absolument rien du tout. Le taux de chômage est élevé, sans pour autant compter les usines, les nombreuses usines qui s'implantent, qui nous polluent. Et il y a eu des victimes. fu mu nekk nag waa PDS dañuy dugg Tëngéej pour mën a préparer seen parti bi ay activités yu bëri la ñuy def waaye tamit seen kuréel yu bëri dañ leen taxawal. teg fa ay nit yoo xam ne dañ leen di jiitee loolu nag wane na ni que parti bi mi ngi yeewu ndànk-ndànk fii si Rufisque si si si biir waxtaan nañu Sagna ca gox ba la ñuy des ak yow waxtaane bi yoon mbirum njàng foofee nag ca banlieue bu ndakaaru rawatina fa ñuy wax tëngeejëk la ko war a sooxe am na ci wàllu njàng mi bu ñu sukkandikoo ci inspecteur ba fa amaloon am ndaje mu ne la fa dëkk ci doomi aadama ca boobule gox mat na ñaari junni waaye nag jàngale ak classe ya néew na fa lool kon faaw ñu yokk ay jéego ngir ñu mën a matale ñu teewlu waay kàddoom Dominique Diouf la ak Nazib Sagna. zone la boo xam ne chaque année ay population yu bees dañu ñëw dëkk si euh, lii am ci transfert ci lim mm, dana mat parfois 500 ci transfert yoo xam ne dañuy jóge ci yeneen gox ñëw fii donc nécessairement euh, au lieu ñuy yokk ay classes man je pense que yokk ay école ci quartier yi quartier bu bees bu ñëw maire yi mën a joxe terrain ñu créer fa école pour que véritablement population yi bëri am ci école traditionnelle yi mën a wàññeeku ku nekk mën a jàngee kër ku ne mën a jàngee sa gox. collège yi tey boo fa demee rek collège yoo xam ne lim élève sixième bi lim bi dina passé téeméer ci lim ci benn classe loolu aussi ñëpp xam nañ ne aussi jafe-jafe la. loolu moo mën a tax léegi ku ne mën a jàngee sa gox excellence bi aussi bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy wut ñu mën kaa am. Dominique Diop moom lañ doon teewlu ca Sangalkam la doon àddoo ci wàllu njàng mi toogal fa nguur ga bëgg nag ñu yokk classe yi ndax lim ba dafa néew lool bu ñu ko méngaleek dafa soxlaam njàng di tuut tànkee ñu des ca diwaan ba bi yoon ba tey tëngeej la foofa nag ñii di ay lébu ñoo àddu ci jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy jànkoonteel ci tàggat yaram boobee ñuy wax rek di rawante gaal yi ne dañu ko war a delloo si waat ndax daan indi koom-koom ci seen liggéey waaye dañoo bëgg a dekkalaat cosaan ak reportage Niang Matar Ndoye la ci waxal. mooy course de wax nañ ne fii zone u lébu la te lébu yi géej lañu am te sunu maam yi lii lañ daan fowe mooy rawante gaal njariñ bi mu am non seulement culture la. cosaan la aada la waaye tamit sport la fo la comme ni football nekk foo sunu maam yi daan ko fowee waaye dama demoon benn jamono xam ngeen ne amatuñu tefes tefes yi dafa commencé amatuñu ko ndax barrage bi bu jëkkoon danga nga daan am tefesu 100 mètres mais léegi amatoo ko ba nga xam ne que po euh, boobu ñu daan fo mujj gi dafa wàññeeku léegi nag bi mu demee ba nar a réer. xale yi xam ne loolu jaaduwul ñu commencé di ko suqaliwaat di organiser. te képp kuy doomu lébu war nañu fexe ba suñu cosaanu lébu nii ñeneen ñi de di protéger seen culture ak seen cosaan ñun lébu yi aussi ñu war a xeex pour que suñu cosaan démb ak barke dee moomu bañ a nax kooku ñu doon teewlu doon uh, addu rek di Matar Ndoye ci wàllu course bu gaal yi uh, ca diwaanu Tëngee ci ñu des ci tàggat yaram bi yoon ñu wutali Sine Saalum ñoom uh, seeni ndaw ak seenub équipe gañe nañu jël nañu raaya ba nag waaye ay koppar mu leen te la ñu gañe di coupe nationale des sports travaillistes leen jaaxal nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy te ñii sax ñoo war a jongante ji Sénégal ci Coupe d'Afrique ñu teewlu kenn ca kilifa ya Ibrahima Kamara lay wuyoo ak Alassane Ba ma coupe bi jël nañ ko nag ak condition yu difficile parce que condition d'hébergement yi demeewutoon noonu transport bi ñun ñoo ko lijjanti suñu bopp loolu la ñuy déplorer au niveau des autorités locales ak autorités sportives de la de Dakar pour qu'au moins nit ñi wax naan phase nationale yi Fatick yi ministre bi ak Njaaña Njaay dañ ko jël en charge totalement ñun feeñul ci ñun gisuñu ko parce que ñun délégation yi demoon ñun ñu demoon représenté ji Kaolack direction salaire ñoo def le minimum le minimum c'était pour nous mettre euh, def ñu à l'aise pour ñu mën a football kii xale yi dem nañ heureusement def nañ ko ba jël coupe bi indi pour la première fois coupe bi jóge dans les régions euh, jóge Dakar ñëw dans les régions ñoo ko def at ay moyens yu dérisoire dañuy ñaan dañuy ñaan parce que sport travail dafay sport boo xam ni nuróowut at nawetaan yi wala nuró at euh, championnat national de 1 D2 ay xale la yoo xam ne dañuy football ci ay entreprise at ay service bañ décom euh, pour bëgg décompressé wu moo tax ñu organiser mais football bi aussi dafa am ay euh, lu muy laaj muy ay conditions matérielles ak conditions financières yi moo xam ne c'est le minimum pour les kii parce que nit ki aussi mënoo entraîner wu wala dem stade football ba pare wëlbatiku di euh, reere ndox wala di reere kii dañ bëggoon le minimum gars yi mën ko organiser wu au niveau des au niveau des région mu dem ba comme on a une on a une fédération nationale du sport travailliste les ligues régionales ñu am des moyens yu ñu mën a soutenir les équipes yi participer ci euh, corpo yi. coowal politique. egsi nañ ci xibaari bitim réew fa mu gën a fesee nag ca réewum États-Unis ak njiit lu bees li ci kawteef ci nguuram gi ndax ñu bari ñu ñu tappaloon ay ndombay tànk ñu ngay delloo la ñu leen joxoon ñu teewlu ci Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke xibaari bitim réew yi dañu koy doore ak coowal politique bu mag bi nga xam ne ëlëm na administration bi nga xam ni njiiti réew bu yees di Donald Trump ca États-Unis mu ngi koy door a am ndax gannaaw ba nga xamee ni ab conseiller maanaam ku koy xelal te yoroon wàllu ngir réew mi am na beneen yëglekaay boo xam ne mu ngi tudd New York Times moom nag am na yeneen yu mu fësal yuy wane ni ñu bëri ci ñu doon liggéey ak Donald Trump ci campagne électorale bi dañu doon jokkoo ak waa Russie lépp nag ngir fexe ba lëj mët wala sax jéem a xool sulli surtout ñenn ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak Hillary Clinton te nekk ci parti démocrate bi loolu nag ñu bëri ci police bi rawatina waa FBI ba ci ay agent yu renseignement yi firndeel nañ ko ci ay woote yoo xam ne maanaam jokkoo yu ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak Donald Trump doon amal ak ñenn ñu baaxu ca Russie te lépp nag jubluwuñ ci woon lu dul di lëj mat ak xool ba ci sulli mbootu Hillary Clinton ak i jegeñaaleem su mu nekk nii nag leer na bir na ni ki nga xam ni moo doon liggéeyal waa état islamique ba ci sax daan wut ñu bëri ci ay doomu réewu France ngir yóbbu leen ñuy xeex ci wàllum jihadisme di Rachid Kassim nee nañu nag faat nañ ko fële ca Irak lu ni mel nag tey ji lañ ko xamle gannaaw ba ñu jëlee lenn ci yaramam daal di koo saytu ngir firndeel ni moom moomu la ñu faat ci fàttaliku nag waa ji ñu ko faat keroog juróom-ñetti fan ci weeru février bi ñu nekk li ko yombal waa yi ko def moo di ab avion boo xam ne danoon naaw mu di drone localiser ko bi ñu ko localiser ba noppi daal di ko song ak ab bomb ci lu ni sax ci la jógee daal di faatu gën nañ koo firndeel mu leer ni Rachid Kassim moom faatu na. ñu jeexalee xibaari bitim réew yi ak mbootaay yi réew yi séq Europe ñu gën leen xam ci waa Union européenne gannaaw benn ndaje bu ñu amal ci Strasbourg ñoom nag xam xamle nañ ne li ñu xaatim ci jokkoo seen digg ci wàllu jënd jaay ak réew bi di Canada gën nañ ko dëggal te it nangu nañ li ñu ci na ma def yépp donte boobu lay xaatim nag ñu bëri soobu leen ci réewu Union européenne yi gannaaw nag bi ñu wanee loolu nee nañu fi mu toll nii Canada ak réew yi nga xam ni ñoo bokk ci Union européenne dinañu amal ay jokkalante maanaam libre échange ci wàllu jënd ak njaay waaye itam ci wàllu liggéey ci mbiru koom-koom lu ni mel nag daañu ko dooree ci réew yi benn benn gannaaw bi nga xamee ne pencu ndaw réew yi nekk ci union européenne daañu jël boobule texte voté ko mu doon réew par réew ba mujj ci dëkk par dëkk ñu jàpp ne nag balaa ñu ko mën a def wala sax di ko gën a dëggal dina def ay ati at ci xibaari bitim réew yooyu la ñuy tàggatoo Ramatulaay Ba dina dellu si juróom-ñaari juróom-ñetti waxtu ci yaatal ko ci nasaraan lay doon Ndeye fattu Ndiaye Mbacke mu fete woon ci wàllu réalisation bi régi bi Cheikh Tidiane Diop moo fa fete woon jërë ngeen jëf ci teewlu bi ànd beeg programme Walf TV la ko jamono càmmoñ